Euh, xeexu mbax mi tam euh, Sénégal euh, am na si benn raaya ñu ràññee ko si si réewu àdduna bi yépp ñu ne ñaarul réew bi gën a xarañ ci ni ñu xeex mbir mi ñu ne Sénégal mooy ñaaru réew boobu derrière Nouvelle-Zélande loolu nag ñu koy rafetlu bu ñu ko mënee am nag c'est parce que dafa am ay critères yu bari mais critère bi suñ njëkk mooy li ñuy wax portage au sommet mooy leadership au sommet mooy ki gën a nekk si kaw réew mi jox ko réew mi mu war ko diriger moom mu porte xeex loolu déjà tax na Sénégal nekk ci kanam parce que de yu bëri leadership au sommet boobu manqué na leen mais ñun Sénégal au contraire tous les jours au jour le jour le chef de l'État son excellence le président Macky Sall day suivre question bi teg en place la stratégie ñun ñu appliqué ko beneen bi mooy engagement au personnel de santé et d'action sociale loolu tam wax dëgg yàlla six mois nelawuñu beneen bi mooy multisectorialité loo xamante ne dañ koy pencoo ñëpp bokk si ñëpp bokk si y compris les populations loolu tam nekk na vraiment lu am sol ma ne lu mel ni de bu amee bu fekkente ne dangaa amul xel rek day nekk occasion bàyyi ko au contraire message la bu am solo lu ñu àdduna bi wax mooy xam nga mooy lan waaw góor waaw góor nag boo ko waxee jàmbaar day tax mu gën donc jëm si kanam mais boo ko waxee ku xamul dara nag day tax mu wàcc ci loxo donc waaw góor bi ñu jëkk ñun Sénégal ñu tax ëllëg ñu gën a def loo xamante ne day gën a am solo si xeex bi parce que xeex bi jeexagul loolu était important donc que mu ko en tout cas maa ngi féliciter son excellence le président Macky Sall parce que euh, stratégie bi mu teg en place pour le Sénégal euh, adduna bi ràññee nañ ko te loolu effectivement donc message la bu am solo pour ñoom message d'encouragement la message loo xamante ne daf ñuy permettre ñu gën a dem si kanam thank you